tey dinaa wax ci atte bi nga xam ne doxoon na ci diggante capitaine toure ak jëmm jii di Cheikh Yérim Seck mu nekk nag dossier boo xam ne dossier bu yàgg la muy affaire diffamation boo xam ne kii di Cheikh Yérim sekk dafa diffamé woon capitaine Touré yàq deram fenal ko ci benn livre boo xam ne daf ko bind ak ay vidéo yoo xam ne def na ko di confirmer fen yi nga xam ne fenal na ko capitaine Touré loolu woon capitaine Touré daal di koy porter plainte pour affaire diffamation mu yàgg lool nag te yoon waxu ci lenn lu dul di ko renvoyer ndax renvoyer nañ dossier bi onze fois fukki yoon ak benn te attewuñ ko pendant ce temps ci la kii di Mame Mbaye Niang porté plainte Ousmane Sonko ci affaire diffamation ñu jël dossier boobu daal di koy def très rapidement pour bëgg a faagagal Ousmane Sonko te pourtant capitaine Touré moo njëkk a porté plainte kii di Cheikh Yérim sekk ngir daf koo diffamé dafa yàq deram daf koo fenal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 muy Macron di ci dox doxinu seytaane ak doxinu fenkat woo xam ne jéggi na dayoo di yàq ka jaxase ak ak di maanaam manipile ay sénégalais ndax diffamation ñi mu fi diffamé ñi mu fi diffamé ci Sénégal kenn xamul nu mu toll mais ñu bari nañ ne woon Cheikh Yérim Seck kat moom waaye état la képp ko ko plante tamit da ngay yàq sa plainte rek mais état du mais yoon du ko ma a woo capitaine nag nekk koo xam nit ku am courage la ndax lii nga xam ne ñeel na porte plainte bi. ci jëmm ji di Cheikh Yérim Seck renvoyé nañ ko lu toll ci fukki yoon ak benn te ki doon sàkku renvoi bi mooy Cheikh Yérim sekk ndax amul benn argument wala benn preuve boo xam ne mën na koo teg devant le si euh, maam euh, ci kanamu àttekat bi loolu tax muy wër-wërloo di wër-wërloo ba démb lañ koy jot a àtte nañ ko nag six mois avec sursis amande ko cinq millions yoo xam ne daf ko war a jox kii di capitaine Touré ci fen yu ngi ko fenal yoo xam ne tegu ko fenn ci yaama neex rek la ko tegoon mu nekk loo xam ne c'est bien fait pour moom ndax Cheikh Yérim sekk dafa tàmm yàq ay gor képp ku képp koo xam ne neexoo ak état mu jéem laa def nit ku bon jëm laa yàq képp koo xam ne ànd nga ak état loo bon bon dana jéem a laver sa honneur dana la jéem a wax ne yow nit ku baax nga ndax yéen ñëpp bu ngeen fàttalikoo day Cheikh Yérim sekk lu yàggul dara fenal na fi Ousmane Sonko ay fen yu rëy rëy ci mbirum maanaam li nga xam ne mooy financement bu bàyyeekoon fële ca Qatar moom moo taxawoon di ko dëggal donte moom génnewut indiwut li nga xam ne maanaam mooy wax ji waaye taxaw na di ko dëggal di ko confirmé ne am na ci ay yu leer loo xam ne yoon da ko war na woo ndax nee na Ousmane Sonko dafa jot ab financement boo xam ne mi nga bàyyi ko fële ci réewum Qatar ngir lu ñeel mbirum ñu négocier li nga xam maa mooy contrat euh, pétrolier yi pour boo xam ne Sonko accédé na au bay wax sax ne am na benn journal bu am crédibilité journal bu crédible bu nekk fële ca France bu ñuy wax xaw ma Canard enchaîné xaw ma nee journal boobu bind na ci ak yeneen ak yeneen alors que parce que Cheikh Yérim Seck nag professionnel la ci fen mais pas professionnel ci journalisme ndax dafa xam ni muy fenalee nit dafa xam ni muy yàqee gor buy fen da cee ànd ak sérieux goo xam ne yow mi xamul dara da ngay foog ne ki li muy wax dëgg la parce que loolu kàngam la ci mooy fen ndax ku fen ba takk jabar fen ba tabax kër fen ba di sol ay costume yu xat kooku jàpp naa ne professionnel nga donc nag li ma yéem ci mbir yi mooy kii di capitaine Touré li nga xam ne moom la ko yoon jox dëgg gi dëgg la gaa seen norme jox ko mais li ma jaaxal mooy amende bi pourquoi muy nekk 5 millions de francs CFA. pendant ce temps Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang yéen ñëpp xam ngeen ne 200 millions la moon amande bi. Ousmane Sonko li mu waxoon effectivement lu am na ndax rapport bi nga xam mooy IGF dafa confirmer li Ousmane Sonko wax ne rapport bi dëgg la am na. bu fekkee am na ci lu wuute lenn képp la mooy Ousmane Sonko te Ousmane Sonko soo waxul som waxul benn som Ousmane Sonko dana rapport épinglé na kii di Mame ci alal juñ ko dénkoon ci mbirum Prodac bi léegi na koppar yooyu mi ngi toll ci quatre-vingt-neuf milliards. ndax sénégalais yëpp 29 lañ doon wax mais toll na ci 89 milliards yoo xam ne Mame Mbaye Niang daf koo sàcc fas ko yéenee rawal rawale Ousmane Sonko 200 millions Cheikh Yirim Seck Cheikh Mirim Seck euh, Seck 5 millions de francs CFA mu nekk loo xam ne man jàpp naa ne loolu du justice jàpp naa ne loolu man d'accorduma ci d'accorduma ci dossier bi nag yàgg nañ koo renvoyer ndax xam nañu Yérim sekk amul benn yoon lay wu mën a teg ci kanamu yoon te ku ne xam na ne bu fekkoon ne sax nguuru Macky Sall mi ngi fi ba léegi dossier boobu duñ ko mas a àtte te Ousmane Sonko moom ci boppam porté na plainte Ousmane euh, Cheikh Yérim Seck plusieurs fois mais ba léegi amul benn plainte boo xam ne def na effet ndax Ousmane Sonko jamono bi nga xamee ne Macky Sall mi ngi fi woon moom jàpp wu ko woon Sénégalais képp kum joteel donte yaa ko tooñ moom la ñuy jox dëgg. Cheikh Yérim Seck ngeen gis dossier Adji Sarr Mame Mbaye dossier Adji Sarr Ousmane Sonko bi fenn yu rëy yi nga xam ne fenn na ko ci diggante capitaine Touré ak Ousmane Sonko ay ka nekkoon ci oto baak nanga ba nag wax ju ñaaw joo xam ne ba tax mu bind ci livre ngir di yàq deru nit ki ak bëgg lu neex état parce que moom li ko doon dundal li doon tooyal ceebam mooy chaque jour que jafee bu fenelee Ousmane Sonko wala kenn ko xam ci opposition bi nga état daf koy woo daal koy récompensé loolu moo taxoon mënut a bàyyi fen moo taxoon mënut a bàyyi yàq nit moo taxoon mënut a bàyyi sos mais fi ñu toon ci gratuite saa bu ngeen gisaan Cheikh Yérim Seck dem toog 7TV jàkkaarloog Maïmouna Ndour Faye bala faa jógee dana fa wax fen woo xam ne ñëppay dar seen gémmiñ ci magum jëmm mu toll ne moom te damay wax ne Cheikh Yérim Seck kuy wër nit ku ñàkk jom nit ku ñàkk mbañum rus da nga koy jàpp ndax man dama doon gis muy wax ci dossier Mamba ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko te moom bu mu fàtt ni dafa violé fii moroomu doomam xale bu ndaw la violé ñu jàpp ko les mais dans la sac ba tëj ko ci kaso te moom dafa avoué nekkul loo xam ne ay tuuma la donte yéen ñëpp xam ngeen ne Ousmane Sonko ay mbiram ak Adji lépp ay affaire tuuma ndax yàlla leeral na lépp moom gis ngeen ni mu doon waxee ci dossier boobu mel ne moom dafa set mel ne moom mësta def benn viol d'ailleurs sax doomam propre doomam def na viol bu doy waar boo xam ne nii nguur gu maanaam maanaam état bu bon wala boog astafurlah wala boog justice bu bon moo tax doom ji génn kaso mais wutoon génn kaso ndax dafa siif violé mais nag li olof ñaa naan kéwél di tëb doom ji bët loolu moo dal Cheikh Yérim Seck may wax ne gis nga Cheikh Yérim sekk bu ñëpp defoon ne capitaine Touré mii mais nag malheureusement ñu bari li ñu doon wax mooy Cheikh Yérim Seck day jërul plainte ndax boo ko plaintee day moom dafa am branlon te état du mujj fenn moom nag mu xam loolu tax muy fenal ni ñi ak di leen sosal ak di leen tuumal ak yàq seen der lu ne waxal na ko régime bi bii fi nekk nii actuellement bi nekkee ci opposition bi lu ne waxal na leen ko te daw ko teg fenn daw am benn preuve nekk nit koo xam ne dafa mën a fen ba ñëpp xam ne dafa mën a fen lépp lu mu wax amul crédibilité ndax yàq boppam te Sénégal léegi jamono bii genre journaliste yu mel ne Cheikh Yérim Seck nag ñoo fi tàmbalee bëri di ay nit ci ci ci gratuite may wax ne nag il est temps nag jël seen responsabilité te xam ne léegi dëkk bi dafa soppeeku dëkk bi état de droit la ñu yor léegi képp ku ñu sosal wala ñu fenal la porter plainte porter loolu mooy tax ay sos fen jeex fi gis ngeen muuru bu sa jàng fan yi li mu yekk Ousmane Sonko. li mu yekk pap Alé xam ngeen ne kooku bu ñu ko plainte woon amul benn yoon preuve yu man a teg ci kanamu juge kon day tëdd mais nit day fenal nit ngeen taxaw di ko seetaan loolu moo yàq senegal nit bu la fenalee loo xam ne wóor na leen du dëgg te amul di preuve porté ko plainte jamono jii ñu ngi ci état de droit bu leer boo xam ne képp ko tooñ nit danga ko fay surtout diffamation yàq nit waxal nit loo xam ne wóor na leen wóor yàlla ne dépp ko bëgg sa poos fees rek moo tax nga nga wax ko kooku yoon dana ko teg ci yoon ñu àtte leen mu fay la wala ba mu tëdd penam kii di capitaine Touré nag moom nee dina topp dossier bi jusqu'au bout ba kerek kii di Cheikh Yérim Seck di ko fay 5 millions mu di ko soog a bàyyi ndax loolu mooy mën a tax moom sa mën a tranquille te itam dina tax bu ëllëgee Cheikh Yérim sekk bàyyi fen bàyyi yàq der bàyyi tuumal askor ci ko gën foofu parce que rek Cheikh Yérim Seck muy fenal ñëpp ñoo ko gën du fenal mukk nit koo xam ne maanaam nit ku ndaw nga moom day xool koo xam ne ku sénégalais jox bopp nga parce que capitaine Touré dossier Adji Sarr bi xam ngeen ne bokk na ci li waral Macky Sall raje ko ndax moo yoroon dossier bi fële ci section de recherche ñu bëgg ko defloo Sall loo mu lànk ñu diaboliser ko fexe ba mag Sall daal di bind décret daal di koy raje mu nekk façon rajin woo xam ne dafa illégal yoon ma yoon sax defut ñu war koo rajee jërë ngeen def ñu ngi leen sant di leen gërëm